lay fay naay. ci loo nekk. maa ngi cool. maa ngi fóoree. maa ngi fii <laughs> mais. mais dañ la gëj a gis nga fecc ci seen i mag yi. waaw temps dama nekk si yenn bagage moo tax seen i gars yi mooy loolu maa ngi si yenn bagage son bi ni quoi tu vois. Hmm. Ah, yow bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo révolutionner la danse sénégalaise ah, tey nga ñëw def première partie ah, Dadju ak tam nga ko nag di def duñ ne ko xeet loo yëg tey. ba déjà je le fais depuis quoi comme ni nga wax tàmm naa ko di ko def ci vois comme dab la. yeeg comme comme Dabo la tu vois doon na def ay ay point parti rappeur yu bëri gàll seen tu vois comme lui il est international d'un jour depuis France il est venu ici à Dakar et c'est la première en fait c'est un plaisir de faire point parti quoi tu vois. Yeah. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut savoir quels sont tes projets pour le moment? Mes projets, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets déjà. Pourquoi par exemple? Parce que ça fait un bail, on ne voit plus Alex. ça fait ba on parce que son bi maa si yeneen bagage damay nekk di job ay school école nekk nekk Dakar léegi tout le temps là-bas léegi amatuma yeneen temps yoo xamante ni ci wàlla mooy loolu di lundi au samedi foofu nekk affaire yu bëri nekkatuma parce que gars fay moo nekk ci waa moo tax ma stand by affaire moo tax gars gisuma si clip yi scène yi dans le truc là-bas quoi tu vois school et tout ça paye bien quoi waaw moo tax maa ne foofu. wax nga dëgg de liggéey nga ciy gis sa bopp. toujours yaa ngi foofu noonu depuis euh, affaire boo kañ fu nga jëma stand ba nga dem fa nga bu am wëccet moo tax ma bay affaire yu bëri maa ngi si bagage yeneen bagage yi ko tu vois ah, am ñu am mbégte contentement rek dajeeg yow di la wax ne nag euh, kontaan nañ ci prestation bi nga def yeah c'est normal Lex King la moom la ça va mais mel ni feccikat yi yaay seen buur de yaay seen roi non da ko wax bu baax même ça répété ko yow ko wax bu baax kuy roi feccikat bu baax parce que képp kuy di fecc Sénégal fii boo xamu Alex seen waa gars seen waa kër dañuy toog di la laaj kañ nga kii moom la Alex de bu doon dabalaawee man la yaa gën a papa king man la. <laughs> Alex dëgër nga fit yow ñii la ñuy fecc da nga koo fecc nga ni yaay seen baay. dëgër fit comme lan waxuma fi Sénégal benn boo xamante ne danse boo xamante ne ku aay boo ma ne mënu ma jaaxal xamu nu mu tudd daa xam kan la fii Sénégal fii daa xam kan la. waaw voilà merci la man la merci beaucoup Alex. <laughs> Hey, hey, hey, c'est le prince d'âge avec Khadija en direct de Dakar. Les choses se passent à elle a sauté, elle a chanté comme jamais. La vidéo, elle va s'en souvenir toute sa vie. Un maximum de bruit pour Khadija ce jour. Oh, oh, oh. Ah.